mbokki amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war ànd ak jàmbaar Wrestling Academy ak 26 unités ya ca parcelle yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war a daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko wër waa seen affiche point com nag dinañu doxal pay per ko bëgg a rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon book daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat aca mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek combat bu mag baa ngi nii war a dox ci diggante ngeer écurie Tay Shinga borom buul borom yëmbal borom pikin ak buur siin buur siin moom yaakaar naa moom mooy borom bawal ak ah, Medina ak Bargny temps yi Bargny la nekk nag ñu ngi leen bu baax di leen ziare waa Rente rek ñoom ñoo jaaraat fii bu ñëwee rek yaakaar naa ne amateur yi dund làmb dëgg amateur yi gis seen bopp ci journée yi nga xamante ne waa Rent Dakar ñoo ngi koy tëgg bii la quinze janvier la incha allah waaye nag mois de février bi bëgg nañoo ñëwaat ci diggante mbay guy gi ak Zarko combat boobu nag moom moom la nante yëpp di xaar comme ni ko gars yi di waxee waaye nag damay nuyu sama ñaari ndaanaan yi nga xamante ne entraînement la jóge bàyyi ay yitte ñëw fii pour ñu def signature contrat bi ngeen maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ngi sant yàlla bu baax di julli di la jaajëfal di nuyu suma adversaire du nuyu le promoteur Jumbo et ak Alain. waaw. waaw maa ngi sant ñëpp. du nuyu waa Pikine bi ma jógee di nuyu suma gaañ bi ma àndal Pape jaajëfal ñëpp ak ak lu làmb di jaajëfal waa ta kullu si nga. <laughs> ne. waaye sant Serigne Touba rek sant yàlla julli si. yàlla di nuyu waa Bawal. waa Medina waa Réfane di nuyu sama adversaire grand guerre Pape Sarr ak Alain sama grand di nuyu Sénégal yëpp monde entier di nuyu waa diaspora bi di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di ko sàkku si ñoom wasalaam. sa grand guerre nga war a bëre le 15 janvier. waaw sama grand guerre laa war a bëre le 15 janvier di ñaan yàlla may man ndam si kawam. da nga mel da nga mel instant bi depuis sa combat bee yàqu ba léegi. non mosuma découragé parce que lam mooy sama business quoi. mooy sa métier. waaw te sama grand la moo ma jëkk si yàgg na si lënd la. lan la la yàqu daaw comme ni eh, ko booy yi waxee. bi nga wax normal laa la wax. ngay wax non sa ni ko booy yi waxee. booy bu ndaw la yaa may dégg. booy bu ndaw. ma nag booy yooyu du ñu benn dama lay wax lu mel ni midi. lu leer nañ laa lay wax am nga komba doy ko nelewaale di ko waale am nga komba buur nga am waaw lu leer laa lay wax grand sama grand nga nag mais bu lam jaar teeru grand bi dañu koy teggi teg ko fale xam ne adversaire nga di nga gis doole jox na xel bu bees baa lu leer laa lay tegal li may wax xam nga làmb defuma ci loo xam ne dañ ma dañ ma ci wan ne dama ñàkk jom wala dama yaa ci xel. ci xel. moom bu dee bu dee nit nga. war nga xam ne ngeer lan la gànnaayoo ba tax mu jël sama combat. loolu wax ji nag jarul moom loolu mu wax waxi dof la. parce que boo taxaw naa ngeer lan la gànnaayoo man sama bët jël na ku dul ngeer. mais du question ni ay ngeer mii moo ma tax a jóg si lam wala lii. Mm-hmm. man damay xajoo ay combat royal laa bëgg a bëre mais pas ngeer. wallaahi. ah pour nga egg foofu nag fa nga. bawal bawal dañu ma sas. te daa am fu ñu ma bëgg ma egg si làmb. yaa may dégg déglu ma bu baax ma wax la. maa lay déglu bu baax. voilà mhm. dama bëgg nga xam ne kii nga jël bu bu deful woon dara doo ko jël champion nga dajel. Mhm. bul na ngeer am na lu mu gannaayoo man mii am na lu mu gannaayoo gaynde mer la fanaanoo boo bëggee dëgg-dëgg. ki ki fekk gaynde mu tëdd mu ruux ko kon xam nga. man pare naa. moo tax ma pare ah? pare naa. xam nga ki ku ruux gaynde am na lu tax mu ruux ko. lu tax moom laa wax ni. voilà te yow doo gaynde muus nga. xam nga dàggasante bi. ngeer di nekk fii di xuli bat eh. di. yooyu am fi ay affaire taay si gaag yi ñun gëmuñu yooyu. xam nga ma rek. yaay taa si nga riiga raagu comme yooyu ngeen doon wax ñun gëmuñu yooyu. ñooñu dof lañ de. looloo fi ne waaw moo ay wokk my friend. ay xale yu ndaw lañu dañuy liggéey. yow boo ma xoolee xam ne waaye lii day dara lii di pof lan mooy dara. non ba ñu daje. yow nga abiyé wu nii di fii di wax laa lii bu ñu eh, daje bu ñu daje luy tooy si yow lay jóge barke yonentu Muhammad Serigne Saliou xam na ne yow wax amul lam la dañu léeg-léeg sama avance waaw ragaluma kenn Lamine xanaa xamoo ma yow ragaluma kenn lam ji li ko tàmbalee si kaw Kajoor Ruwaak ñoom ñëpp ba si suuf ragaluma si nit kan moo kon suñ ne da laa ñeme non non moom yow lay loolu yow lay wax éliwéy mooy wax ji xam nga lan mooy wax ji. man ragalu ma mbindeef bu yàlla bind. bu moo de laa ñeme nga naa nga ci am loo siy teg. kan moo ragal mbindeef. you amal sa bopp. you <laughs> waay gi. waaw mais lënd nga lënd. waaw yooyu yëpp coow jubul xam nga mbër moom. Ah. mooy li may wax rek bu signature amee wala comme yu mel nii. ku nekk li nga sentir ngay créer. Mm-hmm. te man ku nekk xam na ne damay wax lu tuuti jëf lu bari. lamb du jot mukk arbitre kenn suñu diggante ma def arrière kon day neex parce que man saa fu ma tojee sama nen dal sa kaw kon dañuy daje runkum kon daw ñi nga bëri ñëpp da nga daje ñoom merci est-ce que xam nga ni est-ce que xam nga ni prix bip lay doon kon bu ñu nee runkum prix bip lay doon waaw ñu ko gën a bu ñu nee runkum prix bip lay doon foo teg loolu da nga ko ëpp doole da nga ko dàq yow day benn xale mag ngay wax bàyyi leen waxi mag wallaay mag la li ma la wax balaa koo xam ñu bëre ba pare. gis nañ fi santan woos jàmbar. waay sant man damay woos jàmbar. waay booy Lamine dooma cër waay booy. dooma cër waay. mais daan xale. daaw yow. Libidor la mujjee daan. Libidor ba tey sama grand frère la. waaw d'accord. ba ci voilà. voilà. kon ngaa jàpp ne yaa mën kii. mais kan ngay jël avance am te jàppoon ne yaa bu ma jàppul woon ne mën naa koo daan du ma lekk avance am pour que dire ma wax la lu bariwul bu ma jàppul ne mën na maa daan ngeer mii du ma jël avance am man buur lan laa ko lan laay jël avance am te maa ngi koy xool moom moo ma xoolul man ba ñu commencé ba léegi maa ngi koy xool danaa la xool nag voilà awraay da nga ko napp wala nappu ko sax mënu ma koo napp parce que góor yàlla la gentleman <laughs> waaye bëgg nga mu lay xool. si bët. waaw ah, xool ko ci bët neen daa bëgg nga xool ci bët. merci you I you. Don't yourself. my ah. friend. jour J du yomb de fils. tey da nga dégg anglais man jaaxal noo ko wax. li ma ko wax xam na dama ko dama gëm sama bopp. voilà. alright ah, ah, mais combat bi lan nga ci bëgg xeex nga ci bëgg wala bëre. combat bi lu mu laaj ma def ko bu laajee arbitre suuf la ma yenn ba taxaw door suuf bu laajee arbitre suuf la ma door mu ne kelep ma door mu ne kelep. mas ngaa door waaw. kan la woon Mamadi Seras. mas ngaa yenn mbër. ñoom ñoo bokkoon écrit. Mamadi maa ko bu baax a baax a baax. mu am na yenn naa mbër daane naa fi mbër lu ne door fi mbër tànk def lu ne. man kenn mënu maa siise ne fii laay ñëwee bu arbitre soufflé. maanaam da te man xam gis naa ko xam naay qualité am xam naa ne mën naa bëre. et mbër bu gaaw la macha oh, allah merci. all my friend. waaw kon affaire close na xam nga wax ji bari. voilà moom nga wax ci sa mbaax waaye du yàq dara ci sa mbaax ah. xam na ne champion la jël te waxante nañ essence ay kaddu. nañu fexe li ñu waxante fii rek bu ko dara teggee te eh. man gëm naa ne moom dara du ko du teggee ko ci moom na nga daan def ngay def non mais bien sûr arbi si la nga tàllal loxo bi wutal dañuy dalante sa combat gis xaw ma xaw ma loolu bu talalee loxo bi ma dam loxo bi waaw xam nga xam nga xam nga làmb waaw leneen xam nga làmb làmb ñaar la wala ba ñett défensif offensif ak jeu damier hmm. comme li wax rek lépp mu ngi fii te bu dee liggéey daj lu metti mooy tax yàlla may ñu ndam kon yàlla dinañu may ndam incha allah. ok et puis waa Taïsinga da ngeen a bëgg wuure yéen. mais xam nga liggéey la rek. Ah. xam nga liggéey bi ñu ngi ciy bëgg a yàgg. te tey dañuy sant yàlla suñu borom dégg nga grand frère la mu wax mais bu ñu taxawee doo xam kan mooy grand frère bi kon liggéey mooy tax liggéey mooy maye loolu. ngay buur man de buur jaaxal eh, di nga laaj kan mooy grand xam nga liggéey mooy may. sobeel mbaxana bi. waaw waxtaan. yow nga leel ba sa ginnaaw bopp bi fi pour di xasan. non xasante amu si mais. day teg sa respect. adversaire nga fi mu ne nii. waaw dama ne mais leel kii la. la guerre c'est la guerre. après la nag. waaw mun na ni jàkk mbër boo mënee jàkk xam ne du raf ay raf ak yooyu bëgguma ko. dama wax dama bëgg dama bëgg mu aat. dama bëgg mu aat. mais day xaat xam nga ne day xaat yow. yeah understand ci làmm. non dafa war a aat fépp. fépp parce que. waaw bu arbitre ne frit barke alxuraanul karim du ma la jàmm. ma la koy mën yàgg nga seetaan samay combat. samay naa 14 combat yi ñu ma daan ak ma daan yëpp day metti man. lu leer laa lay wax seetaan nga wala seetaan waaye yow mm-hmm. seetaan nga wala seetaan waaw ngeer waaw laajte waatal buur bu fekkee xamoo buur ne laajaat ma man xam naa la bu baax grand waaw mbër you know ok lépp loo bëgg dama la loo bëgg dama la ciy neex lu mu bëgg rek lu mu tànn kon jeex na tàkk ah, zedd zedd ko ci incha allah zedd bëgg naa loolu yàggatul bëgg naa li mu wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax le 15 janvier la incha allahu rabbi fële ca arène nationale wala boog fële ca Mar Diop ànd ci ak waa Rent DKR waaye nag ànd ci ak suñu sponsor leader Tap Tap Seen Pape Sarkaay moom rek ma mel micro foofu. seen yaram dafa tàng. doo ma micro ma woo bool bool yëpp. di nga woote di nga woote di nga woote doom nday. doom nday Iba Ma la ne. maa ngi nii teel micro yaram dafa tàng. waaw lii am contentement rek. taxawaloon lii est-ce que yomb na. non yomb na moom wax dëgg yàlla parce que moom Bour Sine moom man maa ko wax ak sama gars yi maa ne ko tànnal adversaire bu la neex. Mhm. parce que wax dëgg yàlla war nañu yar bi combat bi yàqoo. kon tey ñun ñoo ñëw moom moo moom moo ne di ñu seeti suma euh, frère bi muy ngeer moom it. Mm-hmm. ngeer tamit ñëw yombalal ñu ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. combat bi yomb na daal. jëmboog nii di ma dégg. amul sax ñetti fan. pour mu taxaw pour mu taxaw xam nga may nuyu bu baax euh, Alain di nuyu Jimbo wax dëgg yàlla jàmbaar la. waaw parce que lii nii yombul. waaw di woo nag di di wax bës na préparer drapo am. waaw waaw Beuz. tuddee nañ la drapeau. waaw na ko préparer. ñu woo ren ak waaw ca kanam. Mburok Sow. Mburok soow kenn du Lutte TV kenn du yéen. mu neex mu naqari kenn du yéen. <laughs> waaw ñun fu ñu neex dugg fii du du du mbaaru xar du pantere nañ leen may jàmm. ñu bàyyi leen ñu xam ne ni ñaa ngi leen di. bàyyi xel. war nañ may jàmm de. nañ leen may jàmm. surtout ñooñu di ñu joxe avertissement. waaw nañ leen may jàmm ñu bàyyi ñu xam ne ni tey yéen a ngi tey international yëpp si làmb lañuy seetaan dañuy ñëw suñu gisul perpervi bi amul kenn ku nekk si diaspora bi ku koy seetaan kon nañ leen bàyyi ngeen liggéey. Mm-hmm. ñun de rëccuwuñu si lii ñu dugg nii te ñun ak yéen ba géej gi fer. incha allahu waaw amul lenn lu ñuy tàggale yéen. incha allah yéenay numéro un mu neex mu naqari yéenay numéro un maa ngi ñaanal nag bës fépp mu teg loxom bu mu tontu bu mu wax waaw xam nga liggéey lu bëri wax tuuti mooy bës. maa ngi koy ñaanal suma frère la yàlla na ko yàlla defal jàmm bu mu tontu kenn bu mu mm-hmm. tontu kenn. Mm-hmm. jërëjëf. maa ngi maa ngi nag félicité suma frère bi. est-ce que waa Pikine danañ génnaat comme ni ñu génnoon. dañuy génn. maa ngi woo ñëpp. stade Iba koy teel a wax teel ko wax. waaw waaye li mu jaaxal na ma seen maa ngi koy invité euh, Tapha hmm. maa ngi koy invité. ñu jàppale Bour Sine. waa Bawol waa Medina ñëpp jënd billet waa Pikine tamit képp kuy autorité Pikine. waaw na jàppale seen frère bi Nguer. beneen affaire bi mooy. Mhm. le 15 janvier incha allah dana fekk Boy ñaar tekki. kon mm. bii paa Boy Niang mooy nekk invité. non boo Boy mooy sama invité moom bii yoon. incha allah waaw maa ngi wax wax ko fi mu dégg. waaw Tapha jàppaleel sa frère. Mm. xam nga bépp bépp waa salle de bu pikin waa salle de bu dakaar waa Tali euh, waa Parc Caro ñëpp nañ jàppale seen frère. ngeen xam ne buur siin ngeen am yéen bool bool yéen waa Pikine tamit Pape Gorgui gi mm. Thierno Ndom Ba euh, Lamine Gueye Amadou Isaaka Diop maa ngi mm. woo ñëpp ñu ñëw jàppale ngeer ngeen ñëw wuy si ñu Esat Ibama may leen ay billets may leen ay billets maa ngi woo nag diaspora bi yëpp ñoom Toldo naa Tumaani képp ku nekk ci live li TV maa ngi leen di woo ngeen ñëw jàpp ci teg ci loxo di woo suma international Daouda Mbow maa ngi koy nuyu bu baax a baax laay maa laay Ndiaye mu ngi états waaw lii nag sa combat laay Ndiaye Abu Abu Sall Mama Labat maa ngi woo ñëpp libaas ba jërëjëf maa ngi woo ñëpp ñu ñëw taxawuñu ah, jërëjëf di remercier bu baax suma frère suma xarit suma lépp muy jimboo di ko félicité li mu def nii jërëjëf runkum dajala lépp di xewee waaw bëgg naa la Lamine maa ngi lay fay di bëggee di nuyu wàllu TV yëpp. Mhm. di nuyu champion Bour Sine ger nuyu champion Nguer. ak euh, képp kuy liggéey ci Lutte TV rawatina lëkkaloo ak Rent DKR. incha allah suñu xool seet na ci liggéey bi. jërëjëf le 15 yéen a ngi koy waajal. taxawal taxawal ngeen 10 combat yëpp wala 3 yi rek. ngeen taxawal non 10 mat na 10 yi mat na instant yi kañ 10 yi mat na ba 10 20 février. zarko mbéy bi sax mat na. Ah. donc. Euh, maanaam yéen da ngeen a bëgg teel a ci liggéey bi. non xam nga comme lu Pape Sarr wax liggéey moom antu na waxtu ko parce que lii balaa mu ñoo neex ñun yàlla la neex hmm. ñun mënuñu hmm. yàllaa ñu dooleel yàllaa ñu kàttanal yàllaa def làmb suñu xel ak suñu xol hmm. ba pare dimbali ñu pour may ñu lu ñu am pour dugal ko ci mbër bu ci am combat Jumbo tëggu la Pape Sarr tëggu la Alan tëggu la jox sa wërsëg jaarale ko ci jaam bi loolu kese moo fi nekk amul leneen bu neexul yàlla lii du am fi kenn mënu fi dara kon nañuy rafetal jikko yi nañuy rafetal ànd yi nañuy bañ a iñaanante xam ne amul solo mhm. xam ne lu waay yéene nit bu ko ci yàlla àndul du sotti na ko ne yéen moromam jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj mhm. kon message boobu laay lancé ñëpp ñëpp ñëpp parce lii jàmm la lii jàmm la ak ree yàlla na ci que le meilleur gagne. Mm-hmm. ki ci gagne tamit xam ne sport noonu la. Mm-hmm. ñu avancé daal ñu avancé daal les drapeaux grand combat drapeau kan la. waaw loolu loolu pour l' instant dañ ciy def code. Mm-hmm. dañ ciy def code mais incha allah rabi si prochain. Abdou Karim Fofana euh, nu mu tuddee Abdou Karim moom. mun naa ko tuddee cinquante drapeaux te gëm naa ne bii dama koy tuddee xamul tax. parce que koo xamul noo koy def nam la dafa tax ba ñu kenn xamulee ba ñu kenn gëmulee ba ñu kenn jàppalewulee dafa ñëw jàppale ñu jàppale boo xamante ne nii. doole wax ak yow nii. rus naa wax lim ñu jàppale. macha allah wallaahi lazim donc kooku tey du ma ne moom na ma ndax yàllaa ma moom mais ci lu mu ne maa ngi ci. Mhm. jongante bi muy wut ci mairie Fann Point Amitié yàlla na ko yàlla yombalal te dama ci mën dinaa ko. dinañ ci taqrib daal dinaa ci taqrib parce que góor la. Mhm. voilà mais. Euh, mhm. di di di di ñaan. yàlla ñu àgg ci le 15. top top top seen sponsor. leader non top top seen. sponsor leader. parce que mooy sponsor bi dox fekk si làmb làmb fekki ko. wallaahi. tap tap send mu ngi def ci làmb ñëpp installé waa diaspora bi utiliser leen ko. Hmm. parce que ku ci def transfert d'argent mu may la code nga mën a seetaan làmb. Hmm. tap tap send ba sponsor yëpp dawee moo taxaw dëggal boppam. Hmm. làmb fekki wu ko mi moo ko fekk si te mu ngi jàppale ñu dul làmb. làmb ci fës nii rek mais tap tap seen gàcce ngalaama waa doomi diaspora yooyu. créé application bi ak transfert bi pour waa diaspora yi. jërëjëf yal na yàlla yombalal seen liggéey. merci beaucoup jërëjëf kontaan naa ci yow Nguer looy tàggatoo. waaw di sant yàlla rek wax alhamdulilah rabbil alamin di jaajëfalaat mooy li may wax rek macha allah di la jaajëfal. di jaajëfal ah. di jaajëfal champion bi Bour di wax waa Pikine ginnaaw raay waa Touba ñaan suma di tamit di profité si occasion bi di wax législative bi la si la si la fi ñu ngi ñëw. Mmh. que ñu ñu xam ne ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom waa Pikine ak waa Ginaaw Raay. Mmh. que le meilleur gagne parce que ñun ay mbër lañ. jaaxaanaay rek lañ mën a tëddalee nuñ mën a def rek ba lépp naaj ñun dañ koy def. parce que ay mmh. porteur de voix lañ. tu vois kon donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di jaajëfal suma copain bi ma àndal Pam Ndiaye bi ma ko waxee dafa bàyyi yitteem ñëw. di sant suma entraîneur Ahmed. ak gars yi may entraîner fa sa ñaabu ndaw xam nga serpent noir gars yi. xam nga di jaajëfal di jaajëfal suma batteur Pape Diop ñoom Buna Babacar Mbaye gars yi xam nga xam nga. ak oh, waa ñëpp di jaajëfal ñëpp ah. <laughs> vraiment maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. waa waa taay si képp ku fa am combat yàlla suñu borom may la ndam di wax mention spéciale di jaajëfal ñëpp jërëjëf wasalaam. gis nga bisab saa yi macha tàggatoo looy tàggatoo. di sant yàlla julli si yonent bi rek comme ni ñu ko waxee. Mhm. di woo waa Bawol gépp di ñaanal sama frère Nguer jàmm bu bes ba. yàlla may man dam si kawam di ñaanal Timbo Pape Sarr ale di la ñaanal jàmm yow. di woo waa Bawol gépp fépp fu Bawol Bawol nekk dama bëgg ñu ñëw jàppale seen doom. parce que ñun amuñu lu dul ñoom ñoom it amuñu lu dul ñun muy Medina muy Bargny muy fu mu nekk Paku Lambaay Pikine fépp bawol bawol yi ñu ngi fépp si senegal fépp fu ñu nekk rek ñu ñëw jàppale seen doom yàlla may leen ndam. jërëjëf kontaan naa ci yow. waaw di ñaanal sama xarit Baye Laat du tay si man fu ma ne nga fa waaw waaw di ko wax Fred amal jàmm yow gis naa sa taxawaay si man. jërëjëf. di woo ñëpp. Lamine nga baal ma boo bëggoon bu très très important. Mhm. di yàquwaat. ndax da gis mbër bu bari yaa xam da ngaa daanu yaa xam da ngaa daanu si supporter di dajji chaise yi di ko sànni. dafa ñaaw waaw. dañoo tool genn wàllu siècle di sàkku yàlla defal ñu fu ñu bëree ñu moomal ko suñu bopp kon bu ñu ko yàlla joxee ñun ñu nekk ci milieu bi moo xam mbër nga moo xam supporter nga moo xam amateur nga entretien bi ak sàmbalu suñu alal googu ñun la war. <laughs> na mbër yi di gën a wax ak seen fan sa club yi foo rek la mais boo dajjee chaise sànni ko yaa ngi. Euh, yàq deru làmb taaralal too làmb sponsor bu naroon ñëw loolu mën na koo tax a dëpp lii tax ñu ñuy xas naan mbëri ay dof la ñoo mbëri lii mbëri nit njaay la bu yor njaboot yori kër di def yi teranga li ngay yéene sa bopp yow mi président loolu la mbëri yéene boppam kon mbëri nañu wax ak seen fans club ñu wax ak seen supporters yi ñoo xam ne bu ñu ñëwee stade phénomène boobu muy ngi commencé law te foog ñu wax ci ngir ñu saafara ko balaa ay ndogal di ñu ci fekk. macha allah rafetul message voilà jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax a baax. Jumbo di kontaan ci waa Tab Tab comme ni ma koy waxee rek wax ñeneen ñi tamit nañ ñëw dugal ci seen loxo ci combat yi nga xamante ne waa Rent DKR ñoo ko ñu ngi koy tëgg même bu ñu fekkee ne sentir nañ sax beneen promoteur nañ dem dugal ci seen loxo ci yeneen promoteur yooyu ndax lépp làmb la waaye runkum daje. foog ñu daje ji fa incha allah rabi foog nga jaay dibi. lu waay am foog nga jaay dibi ubbi na waral 7 heures. 7 heures. amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war a ànd ak jàmbaar Wrestling Academy ak 26 unité ya ca parcelle yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa PAF production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ak li ko wër waa seen affiche point com ku ko bëgg a rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon boog daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat